yaa muy waa Crédit Mutuel man maa ngi tudd Ahmadou ma Dieng maa nekkoon PCA bi léegi ginnaaw gi ki moom ma remplacé muy Maodo Diop moom mooy PCA bi soxna si seen bu ka seen bu Fall moom mooy euh, gérante ba ñu ànd ak euh, Pape Matar moom mooy euh, président Euh, mooy PCS ba président euh, commission de surveillance ba ak Omar Ndaw mi nga xamante ne bii moom tamit euh, agent de crédit ca ca kes ga. ñu ñëw tey jii nag ndax xam bu baax a baax commission sociale Touba kam la muy liggéey ci wàllu social ci néegi doole ji jëf yi ngeen ciy jëf umpatul kenn ndax la lay salos mbir ma rek ngeen wax ko ca ndorteel ba léegi laaj nit ñi lu ñu man di ko def fu ñuy gis loolee jóg leen ci boobu ba léegi. waaw ginnaaw bi nag euh, ban fi ñëwee jamono yële jaayante woon ci lu toll ci un million. tey gi doon dellusiwaat. ndax bëgg dugalaat suñu loxo nag ci commission sociale bu baax a baax ci sociale bu baax baax ndax euh, xam na ne euh, crédit mutuel partenaire wu Touba ca kanam la. ñu yàgg di liggéey ca booba léegi wax dëgg yàlla gis ñu ci dara loo xam ne lu lor la ndax. lay la nga xamante ne bi moom mooy yëkkati crédit mutuel moom mooy jóg tamit pour jàppale askan bi nga xam ne askan yu néew doole ji la kon bu ñu gisee Touba Ca Kanam tamit jëm ci yoon woowa dañuy sawar lool ànd ak moom ci loola e, ginnaaw euh, gis na ne lu dul magal gi sax da ngeen di da ngeen di dangeen di def ci sociale bi lu lu lu lu rëy rëy lu nit ñi ma teg seen bët Euh, kon nag magal gii bëgg a nga xam ne bis la boo xamante ne bii bisub euh, sant suñu borom la bisub sant yàlla la sëñ Tuubaa yëgle woon ko mu nekk mu war a nekk bis boo xamante ne bii ku ci nekk war na cee gis sa bopp ngeen tamit yéen tamit ngeen jóg di ki dox euh, ñun tamit ala kulli ñu ne nañ ñëw def ab tàmbali ndax dañoo bëgg lii doon ndorte rek waaye nag luy law la loo xamante ne bii incha allah bu ngeen ñu si ñaanalee jàppale ñu ci incha allah dana dana dana gën a law ba fu ñuy tuddee ci partenaire u Touba kanam kenn kenn kenn duñ ca jiitu matron tey yi ñu nañu ñëwoon indi rek sunu sunu euh, sunu sunu ziar participation la boo xam ne nag lu lu néew la bariwul euh, cinq cent mille ñu ne woon nañu ñëw euh, def ko ci barkeelu boobu ñu dugal ñu ko ci social ba nga xam ne yéen ngi ciy liggéey bu baax a baax baax a waaw ñu ngi tub bu baax nag ci ci kàddu yi ndax xam na ne lu ñu xeeb la nag di am mbégte mu rëy ci dalal délégation CMS bi CMS ak tubaa ca kanam nag partenariat bi yàgg na Euh, jiitu na sax ñuy am collaboration boo xam ne ñoom dañu dem ba nekk partenaire financier suñuy euh, collecteur mën di fa verser ñoom xaaruñu loolu dès le début rek yàgg nañ di poser ay acte sociale di ko jëmale ci Touba ci kanam tey nag ñu ñëw fi euh, indi montant bu toll ci cinq cent mille indil ko commission sociale bu Touba ci kanam li waral loolu nag dañoo gis ne commission sociale liggéeyam yëpp mooy fexe ba askan wi seeni coono wàññeeku ñi ngi yëngu ci wàllu ay logements sociaux di ko dimbale nit ñi ñi ngi yëngu yëngu tamit ci ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu bëgg a faju cas yi nga xam ne ay maladies lañ rek malade yi fi nekk rek kenn xamul lu mu toll ñoo xam ne soxla nañ ndimbal ñi ngi yëngu yi tamit ci ñi nga xam ne ndeysaan dépense su kër ga da leen di të donc ñoom dañuy dem ba liñ yor euh, day métti bu ñu amul ay partenaires yu leen di jàppale kon nag bu CMS ñëwee def taxawaay bi te yàgg na ko def loolu dañ ci am mbégte mu rëy di ñaan rek partenariat boobu gën a dëgër gën a jëm ca kanam CMS nag moo Touba ca kanam am na lu ñu nure lu ñu niroole li ñu niroole mooy njëriñ li jóge ci euh, mbokku taalibe yi di dem fu mel ni CMS génnul réew mi. di sant bu baax madame kan ndax euh, moom moom ni muy génne rek ci poosu boppam di ko joxe di ko dugal ci Touba ca kanam kenn xamul nu mu toll. kon nag bu àndeek euh, waa euh, kilifa yëpp yu CMS ñu ñëw fi loolu mbégte la ci ñun yaa latifu yaa karimu yaa jalil haamil jamiana bilurfikal jamil